mbokki internet yi safoo di setaan info cent vingt dal leen nag jàmm ci xibaar Kouthia bi nga xam ne nii mu ngi doon liggéeyee foofu la ci TFM moom Kouthia moom sax moo doon def émission Kouthia Show bi nga xam ne nii yéen a ngi teewlu info 221 moom Kouthia dafa daal di bàyyi rek foofu la ci TFM ginnaaw ba nga xamee ne nii moom Kouthia doon na def benn émission doon wax li nga xam ne nii moom la imaam yi nekkee fii ci Sénégal ba ñu bëri sax yaakaaroon ni moom Kouthia ka muy waxal moom mooy oustaz Modou Fall ginnaaw ba nga xamee ne nii oustaz Modou Fall nag génnoon na di moom li mu nekkee képp ki a ngi teewlu info 221 moom toog ci ne kon moom moo di Kouthia ñu bëri di jàpp ni nag moom Kouthia looloo tax mu daal di jugee foofu la ci TFM mu nekk sax koo xam ne nii mën nañ ne yàgg na loolu foofu la ci TFM ndax def na fa lu war a toll ci fukki at moom Kouthia bi nga xam ne nii daan na bégal sénégalais yu bëree bëri ci li nga xam ne moo di émission Kouthia Show bi nga xam ni moom moo ko daan amal foofu la ca TFM mu mel ni sax kon sénégalais yu bëri dinañ daal di namm émission bi nga xam ni moom la ko Kouthia daan amal foofule ca TFM